Euh, bu ñu demee ci wàllu li nga xamee ne jot nañ ko ci euh, liggéey ci liggéey bi daggee janvier ba euh, le 30 li nga xamee ne jot nañ koo versé mi ngi nekk ci trente huit mille sept trente trente huit millions sept cent quatre vingt huit trois cent soixante mooy li nga xamee ne jot nañ ko liggéey ci janvier ba le 31 septembre hmm. kon. loolu daal mooy li nga xam ne kii waaye bu dee ci warul jafe-jafe li nga xam ne moom ngi leer laaj moom gën naa ne benn jafe-jafe amuñu ko waaw noo ngi sant di sant it eh, ñi nga xamee ne ñoo ñu teewal ci état yi ndax wax dëgg jëmmi Amérique moom eh, ni nga xam noonu lañ mànkoo moom loolu mooy li sëriñ bi bëgg ci ñun waaw ndax genn kàddu gi genn la jëf ji genn la mosu ñoo werante ci lenn ca lépp loo xam ne wax nañ ko rek dañ koy daal di jëfee ni nga xamee ne noonu la kawe suñu jor kon dañuy maase bi sant li ko sëriñ soxay bi mi nga xamee ne mooy jëwriñ ji te mat ko sëkk euh, soxna Dikel Thiaw Badiane ak euh, vice président sëriñ Masay Ndiir ak mbooleem mbokk yi nga xamee ne ñoo nekk ci état yi kon daal ci tënk daal mooy amul moom amul benn jafe-jafe loolu daal moom li nga xamee ne moom lañ kii ne ci kanam am na euh, sëriñ Mourtala Ndiaye mi nga xamee ne mooy Euh, vice président euh, massification bi président massification bi moom dana ñëw leeral li nga xamee ne mooy suñu yitte yoo xam ne danañu bëgg ngeen dégg ko waaw waaye bu dee ci leneen moom ñoo ngi sant sëñ Tuubaa baax bi ñaan lépp lañ fa liggéey ci lu baax suñu borom nangul ñu loolu daal mooy moom mooy suñu yitte jërëjëf sëriñ Modou Mbacké bu ngeen gisee ñu njëkk ko jox kàddu dafa bokk ak ñoom liggéey ba nekk ba tey doon kilifa ci yoon bi ànd ak taalibe te rafetlu ko lool moo taxoon Amérique nag day day réew moo xam ne juróom fukki état moo fa nekk kon du du keemaan ci euh, ñaar jël fa kàddu parce que bu ñu demee ci sax commission yi bi ñu koy fal bu ñëwee mel ni Amérique ak Italie lu mel noonu dañ ko doon def kon sëñ Mourtala man nga yegg si leeral nu liggéey bi nga xam ne moom la Amérique liggéey. ginnaaw bu ngeen dégloo noonu nga jaar ñëwal ñëwal ñëwal ginnaaw bu ngeen dégloo ni ñu ko waxee woon euh, Amérique daaw bi ñu fi bàyyi ko ak léegi yan taxawaay la am ci liggéey bi muy suuf commission euh, continentale nga bu Amérique. aoudu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp. di ci jiital kilifa yi fi teew buñ ci duddee alaaji tàkkoor yaakaar naa dana mën a yóbbaale ñëpp dañuy bañ a guddal ndax jataay bi kenn ku nekk xam na ne laaju ko euh, te sëñ Mbaye defe naa ni mu koy waxee mel na ni ku nekk juróomi minute la la kii te sëñ sëñ jël ci lu bari kon dañuy gàttal rek euh, euh, fi ñu waxee nag sëñ Mbaye daa mel ni dafa wax ne dañoo bëgg kenn ku nekk la nga def nga leeral ko jafe-jafe ya nga am nga wax ko bu ko defee ñu jéem cee mën a trouver ay solution euh, xëy na ci côté liñ def moom damay jàpp ne du jar ñu ci guddal ndax ginnaaw xëy na sax baax na ñu di ko waxtaane ngir nit ñi xam ci ne bu fekkee ñooñu ña nga doon jaar ci yoon woo xam ne bu baax la te di ci am ay résultat ñeneen ñi mën cee sukkandiku waaye ci beneen côté bi damaa gis ne ginnaaw sëñ bee taxoon ñuy def yàlla nañu ko nangul rek lañ ciy wax bu ko defee ñu mën a waxtaane ci yeneen yi ci des man nag mbirum Touba ci kanam loo xam ne xëy na man la engagé dama ciy wax dama ciy faral di wax ñaar bi ci jiitu mooy damay ñaanal ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi jiitu ko Sëñ Touba tegal leen boppam loxo ndax li ñuy def nii kenn ku nekk xam ne lu yombul kon yàlla na leen sëriñ bi sàmm ba yéen ji ngeen am ci liggéey bi ngeen yóbbu ko fu kawe seen jort beneen bi damay faral di ñaan naan yàlla bu ci saytaane amu yoon waaw loolu day dafa day loo xam ne damay wét di ko wax di wéttali ko di ko wax xëy na yëg-yëg ba ma ci am suñ borom laa koy seedeel waaye daal maa ngi koy doollee ñaan fii di ko ñaan nit képp koo xam ne nii euh, am nga sa am nga yaakaar ci sa ñaan del ñaanal waa Touba ci kanam yàlla bu ci saytaane amu yoon waaw euh, kon xëy na sëriñ Soxay bu mais nga xam ne moo sëñ Moodu ñooy ñooy ñooy kilifa yi te teg ma loo xam ne nii lottu naa ci lool waaye dañ ma koo forcé <laughs> laa noonu laa koy tudd dañ ma koo forcé ma jéem ci kon li ma man rek yiñ tënkoon ne naa ko fi waxtaane xëy na dana mën a amal njariñ ña nekk Amérique bu ci waa bu ci kilifay Touba ci kanam jëlee ay matuwaay mën naa amit mu amal njariñ yeneen nit ñu nekk ci yeneen dëkk bokk na ci ñu xalaat ci ne dëkk yi ni ñu sorewante wala réew yi laay wax ni ñu sorewante noonu lañ wuutee ay réalité maanaam ñu jéemoon na xalaat ci ne ndax loolu li tax ñu xalaat ko mooy dañoo gis ci Touba ca kanam ci lu baree bari ci ni mu doxee dañ koo tënk ci réalité Sénégal te dafa dëkk yi dañoo wuute ay ay réalité loolu ñu ngi doon ñu ngi doon sàkku ci kilifa yi buñ ci mënee xalaat ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàppale ñu ci exemple bi ma ci mën a joxe mooy deuxième point te muy deuxième point bi mooy fii ci tuubaa wala fii ci Sénégal day yomb nit ki ñëw inscrire nekk membre Touba ci kanam joxe benn 5000 francs chaque mois dafa yomb mu gis benn kilifa ci membre Touba ci kanam yi ju mën ku mën a jox 1000 francs dafa yomb fii ci Touba mais lu mel ni Amérique suñ choix bu sekk mais am na ay membre Touba ci kanam yoo xam ne mosu leen a tëg ba bu bëggoon a jóge dëkk ba mu nekk muy Cincinnati Ohio par exemple laay joxe dem California mun na ko jëlal benn 24 heures bu ko dee dawal ci oto xam nga kooku boo ko nee da ngaa da ngay war di joxe 1000 francs par mun na jafe ba tax na ñun xalaat bi ñu ci amoon jombut xëy na sax jaaroon ko ci kilifa yi waxtaane ko ñoom mooy liggéey waaye ginnaaw fi benn assemblée générale lañ ko mën a tuddee mun nañ fi souligner problème yi bëree bëri ñun xalaat bi ñu ci amoon mooy dañoo amoon xalaatum nekk bu nekkee mën naa nekk waa Amérique mun ngeen leen a bàyyi ñoom ñuy defar seeni i carte membre di ko jox di ko jaay seen i ay membre ya nekk foofa di verser si fii xaalis bu fekkee mën naa nekk waaye même bu munta nekk ñu ngi doon ñaan ñu defal ñu benn carte boo xam ne benn 34 dollars rek lañ ci def par an nga xam ne boo gisee nit ki tey ci màggalu Touba wala tabaski wala lu mu mën a doon benn wala mennum ndaje murid mu mën a xew rek dafay joxe benn 34 dollars ci année bi yëpp ndax 12 euh, mille francs yi ñu wax ne moom la membre bi di war a cotiser. waa dañoo wax ne membre bi dafa war di coti dafa war a pour pour mille francs di joxe 12000 par an mais mun na koy joxe 1000 francs ñun biñ loolu biñ ko bi Touba ci kanam ñëwee Amérique dañ ko arrondir rek ci benn 34 dollars 34 dollars lu taux bi daanu daanu daanu mun nay mat somme moo tax ñu ñu doon ñaan bu fekkee loolu mën na nekk benn carte boo xam ne 34 dollars rek moo ci nekk. boo taseeg nit ki jaay ko ko ci année bi mu pare ci boobu mooy deuxième point beneen bi euh, ñi ngi doon xalaat loo xam ne xëy na sax jomb commencé nañ cee waxtaan ak. lenn ci kilifa yi mais benn publicité boo xam ne ñun dañuy dem négocier ak télévision yi ñu ko bëgg di dawal fay ko ci suñuy propre moyen ñu ñu koy jàllale mais publicité boobu dafay nekk topiquement Amérique nga xam ne par exemple ci publicité yi doon jàll ci biir màggal gi te Touba ci kanam def ko da ngay gis ne nit ki buy bu euh, sëñ Fallou walla sëñ Sidi Seck defe naa nemmeeku naa leen ci ak ñeneen ak ñeneen bu ñuy wax que mille francs nangam nangam bu ñu amoon publicité boo xam ne dañ naan murit bi nekk Amérique wala sax jullit bi wala ki ci bëgg a bokk moo xam dañ naan la 2 dollars par mois wala dañ naan la 34 dollars par an maanaam publicité bi lu mel noonu ñu ngi ko doon sàkk bu fekkee mun nañ koo am. defe naa am na kilifa yu ci jot a jot. beneen bi euh, moom itam dañuy gis ne foofu da ngay gis nit koo xam ne da ngay tasee moom lu mel ni mois de janvier mu jox la 34 dollars. mais li des ci année bi yëpp mun ngeen di tase mu lay jox ay parquet mais doo am loo ko justifié ñu doon ñaan bu fekkoon mun nañ am ay saaru carte barkeelu boo xamee ne que nit ki bu la bu cotisé li mën a cotisé ci année bi ba pare bu ëllëgee bu ngeen tasee bu la joxee dara xëy na sëñ soin bi sekk mi xaalis bi dem ci moom amu ci problème ci moom dina ko versé mais nit ki ngay ki lay jox nga delloo ko moom itam luy tekki ne kopparam yi fii yii fii mu ko dugal donte yàllaa ak sëriñ bi waaye jox nga ko luy firndeel ne moom joxe na dara loolu it ñu ngi ko doon sàkku ci kilifa yi su mënee nekk dama ëppal ba maa ngi jégalu ci waaw maa ngi jégalu beneen bi defe naa euh, point yi bu ci nekk laal naa ci beneen bi nga xam ne nag moom laay mujje mooy man dama dañ cee toog ñu waxtaan ci léegi ñu gis ne ndaje mi nii lii daf ci néew ci mbooloo mi fi daje ñu jàpp ne wuruñ woon ko féetale benn commission boo xam ne ñooy daje lu mel ni màggalug Touba ñu jàpp ñu ne sëñ Abdou Fatah sànq wax na ne juróom benn fukki réew ak nangam bokk nañ ci Touba ca kanam ñu jàppoon ne ndaje mu mel nii bu amee war nañ koo siiwal ci membre yi Touba ci nekk ci dëkk bi ñëpp ñu ñëw fi salle bi fees dell loola it day tënku ci moom itam ne que ndaje yi am ci bitim réew moom itam waa Touba ci kanam ñi nekk fii ci dëkk bi te doon kilifa surtout